سعد من في دلا زمزره إن جندا من خياف قد سرى هذا قلبي من خيال قد سرى ay ci ñu ngi fi ci euh, batay rek ci bërebu Serigne Babacar Sy ma dajek sama benn yaay boy, dama koy laaj nak la gisee euh, li nga xam tane modi euh, gamu gi salaamaaleykum maman. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi ziar. tur bi nak la. Maguette Gueye Thiaroy. maman Maguette nax nga nax nga gisee rek li nga xam tane modi gamu 2019 neex sa xewal gi saawaan baawaan sëñ Babacar Sy ñëpp a bëgg ñuy ñaan yalla nañ fi gamu ci déwén di leen ñaanal yeen tamit. ay ngeen fii ñëw ay gàmm yu bëree bëri kontaan trop ku ne xam na ne gàmm gi ren am na changement trop trop trop trop lii daal yàlla nay sax yàlla na yàgg si barke Sëñ Babacar Si. ci bëgg nañu xam uh, ban conseil rek ngay jox jeunesse bi nga xam te de ñoom ñoo nekk uh, ci réew mi pour ëllëg uh, déwén incha allah bu ñuy ñëw ñu gën a defaruwaat. waaw xam nga gis nañ lii conséquences yi mu ngi nii fii tay baas dugg fi zipu fant dugg fi pose ongle dugg fi dara dugg fi rosa dugg fi dara dugg fi bu déwénee xëy na dinañ changé incha allah. ay ci ma di eh, jàkkaarloog sama tata bi rek tarkal macha allah ñu fekk mu dik ay loxoom eh, di ñaan eh, dama koy bàyyi rek mu daldi di ak mbokk internet yi nga xam ne ñoo seetaan Hann TV salaamaaleykum maman. maaleykum salaam. ñu ngi ziar bu ñu ngi doli ziar bu baax. bi naka la Rama fan nga jóge. man ma ngi jóge Guédiawaye amoo siis. ñëw gamu si. Mhm. nga nak nga gisee gamu gi ren. wa sant yàlla rek comme ni mu daan demee su nek parce que at bu jot ni lay mel. Mhm. wa boy euh, set sax day yokku parce que ñun fi rek lañ am ñoo ñoom ñooy suñu ay la ñoom ñooy suñu lépp donc à chaque fois su programme amee dañuy fier pour ñëw fii. acca bëgg nañ xam rek ban conseil rek ngay jox jeunesse bi nga xam te ne ne ñoo nekk rawatina ci mim réew mi nekk ni pour déwén incha allah bu ñuy ñëw gàmm ñu gën a defarwaat. waaw man li may wax rek saa su parce que ñun ñëpp ay jeunes lañu mais dañoo war di góorgóorlu ci li nga xam ne moom lañ fi digle mooy li si mel ne pause yi xef yi rosa yi ak crayon yi nga xamante ne booy jub si bërëb bu mel nii da nga war a éviter. donc day ma leen ñaax tout le temps que ñuy bàyyi xel ci loolu parce que nit ki bu ñu lay ñaaxtil dara bu yàggee da ngay donc ñuy ñaan rek ñu bàyyi yoyu lo xam ne fan la da ngay ñëw nga sellal Jakarlo, ki nga yakar ñaan ko ci barke euh, Seydina Mouhamed ak borom bés bi mu nangu ñaan donc loolu dafa am solo daal vraiment waaw. ñu la fekk tamit nga dégg sa sa loxo tamit di ñaan na xam lan nga doon ñaan. waaw xam nga man góor gi dafa nekk koo xamante ne foo lo ñaan da koy da koy nangu parce que ginnaaw yàlla ak yonent ñun moom rek lañ am. waaw dama ñëw pii fu dis ay soxla yoo xamante ne saa yu ma fi ñëwee nag day faju waaw moo tax ma dellu si waat. <laughs> kon baax na foofu. bon gàmm. ah merci beaucoup merci. <laughs> ak ko jaajëfal bu baax a baax euh, aj euh, ñu daal di euh, doxantu ba tey rek. ba tey rek ci bërëbu Serigne Babacar Sy Malick comme ni ma koy waxee rek sama Serigne ah, ma daal di jàkkaarloo sama papa bii rek daal di koy laaj euh, naka la gisee gàmmu gi ren Mawlud 2019 salaamaaleykum papa. waaleykum salaam wa rahmatulah Mawlud. tur bi naka la. man Massil la jóge ba Louga. Louga nga jóge waaw. ci mën nañu xam euh, nax nga gisee rek euh, gàmmu gi ren. waaw gàmmu gi de neex rek gàmmu gi moom fii ñu taxaw moom ku wër lu naqari sax du fi ñëw. bërëb bii moom li ñuy ñaan suñu borom lépp rek suñu borom defal ñu ci xéewal ba bu bu buñ fi ñëwee gën a yokk ba yëg ko rek waaw parce que moom fii moom ku dul yokk sax du fi taxaw. ci mën nañu xam lan ban conseil rek ngay jox gone yi góor yi nga xam te ne ne ñëw nañu gàmm ci na rek euh, année bi di ñëw incha allah. waaw di leen conseil ñu ñëw rek topp seen diine parce que nit ndox du bàyyi yoonam conseil leen mooy ñu ñëw topp seen diine parce que bu doon yeneen ñu dem ci te lu gën a farata moo tax maanaam lu waay def rek nga bàyyi ko te ñëw. mom moy gën moy li gën daal. Mm-hmm. na fekk tamit nga yaangi yo yor kurus euh, di euh, wird mm-hmm. di ñaan sa soxla mën nañu xam yu fi nak la démé wa non damay ñaan li ma soxla rek. <laughs> ma faté wo ñu rek. non la ñëpp ak ñi mënta ñëw tamit amna ñu bëgg a ñëw te ñu ñëw dañ leen di ñaanal. Mm-hmm. wa amna ño xamni seen yene mo doon ñëw mais suñu borom def na ne ñu ñëw ñu ñaanal ñëpp rek wa képp kuy ab jullit rek nga am jamm am xéewal lool rek la ñaan wa kon ñu ngi lay souhaiter bon gam jërëjëf yéen merci. mel ni baax na foofu de ayca euh, ba tey rek ci euh, bërëbu euh, Serigne Babacar Sy Malick ayca ma daal dégg sama micro sama maman bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. maman ça va. ça naka la. Dieynaba Cissé. maman fan nga jógee. Dakar. nga jógee. waaw yow nga gisee gàmmu gi ren. waaw ah, xanaa neex yàlla fekk fekkee déwél bari. ayca en fait euh, am na benn jeune euh, salaamaaleykum euh, soxna si. maaleykum salaam. tur bi naka la. Mami Fall. fan nga jóge marché Ndiarène. fan nga jógee ñëw gàmm si. waaw ndax nga gisee gàmm gi ren. ah gàmm gi moom ren dafa ala doom neex na torop sax. ayca mën nañ xam ban conseil rek ngay jox sa moromu jeunes yi. waa leen wax rek pour ñu gën a góorgóorlu yokk pas-pas rek. Mhm. ndax loolu daal mooy li dem. Mhm. moom tamit gën a gën a defar muuraay yeeg defar muuraay yi te bàyyi fant yi tamit. Mhm. wàññi make-up yeeg yooyu. pour ñu mën a dem. loolu rek laa mën a wax daal ci ko ñu ngi lay bu baax. waaw bu boobu ñaanal bon gàmmu. waaw amiin jaajëf merci beaucoup souhaité ñëpp bon gàmmu. merci beaucoup. maa ngi jàkkaarloog euh, benn jeune euh, dama koy laaj rek euh, lan la moo waral ay tànkam rek fii ci biir waaye ñu ngi ko gis tamit mu takk benn njëlu maam Cheikh Ibrahima Fall salaamaaleykum. waaw maaleykum salam tur bi naka la. Ndiaga Ndiaga. Ndiaga far nga jógee. Tëngéej. Tëngéej nga jógee. waaw waaye ñu ngi la gis yaa ngi takk njëlu maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw dëgg ñun ñoom yàlla dafa def ñu doon ay Baye Fall mm. mais tamit dañoo bëgg dañoo bëgg maam El Hadj Malick ba tax na nag saay bu wootee lépp luñ jàppal lu ne dañ koy bàyyi teew ndax lépp dama jàpp ne lépp benn la daal waaw ñoom ay Baay Faal lañ te tamit dañoo boole lépp doon benn waaw sëñ Tuubaa maam El Hadj Malick ñëpp benn lañ moo tax xam nga maama maama Alaaji Malick bu wootee nii dañuy bàyyi lépp ñëw teew waaw. ayca bëgg nañu xam ban conseil rek jox sa moromu jeunes yi pour en cas de ñu gën a defaruwaat. maanaam dama bëgg ñëpp doon benn ñu xam ne tamit yoonu tiijaan ak yoonu murit lépp benn la man loolu laa jàppa te tamit lépp benn la daal waaw te tamit ku fi ñëw tamit nala la lu indi tamit xam nga nga tekka si yoon waaw dund li ngay dund bu jeexee jeex na ñun ñoom tànk yu ñu yëkkati mooy tànk ñëw si guddik Seydina Mohamed bi leneen yëkkatiwuñu lu dul loolu ñooy jógee ba suñ dal nag sax lañ bëgg a ñibbi nii mais dañ ne bala ñoo ñibbi foog ñu ñëw ba fii nii mën a waaw mooy loolu. parce que lu waaw am leen jàmm yéen. ak jàmbaar ñu ngi lay ba. oui ñu ngi leen koy delloo. jàmbaar lan moo waraloon ñëw bi fii tey ci gàmm gi. waaw di kennal sëñ Babacar si rek ku tedd ki ñun nag dëgg la ay murit lañ. mais saa su ne rek bu gàmmu amee nii ñun foog ñu jaayante ko ñëw ba ci bërëbam loolu rek a waral sunu teew moo tax nga def sa moo tax nga def waaw man taalibi sëñ Abdoulaye laa mais damaa bëgg sëñ Babacar si waaw looloo waral nii xam nga ma def bii quoi. ayca ban conseil ngay jox jeunesse bi. waaw na ñëpp am jàmm rek ku nekk yéene sa morom jàmm rek àdduna bi dafa jeex ba pare loolu rek moo fi des ñii nag ñoo ñu mën a taxaw muy jëmm yu tedd yi uh-huh. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. waaw ok. ayca maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen mbokki internet yi xam ne nekk euh, ba gàmm gi commencé ba léegi yéen a ngi ñuy topp di suivre suñu ay programme dañuy def lu dul rek euh, daal leen di euh, jox dig dage rek ba guddi incha allah ci guddi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee rek ngeen mën a am ay ay yu leer gàmm gu neex ah. ci kanam tuuti rek lay daal di doon.